asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalul xalif général kulu murit sëriñ Touba Cheikh Muntaka ci ndigalul sëriñ Ibrahima Mbacke xalifab sëriñ Mandumbe Xabaan ak mbooleem njabootug sëriñ Mandumbe Xabaan gépp ci ndigal ak ci kilifteefu sëriñ Ibrahima Mbacke xalifab sëriñ Abibu Mbacke mooy yëgal ak fàttali guddi gu tedd gu sell googe nga xam ne mooy guddi la tun xadar mu ñu jàpp ko ñeent fan ci weeru avril tombe ak ñaar fukki fan ak ñeent di ñaar fukki guddi ak juróom muy guddi laylatul xadar mu jox ndigal nag rakkam ju baax jii nga xam ne moo yore kàddu njabootu kër sëriñ Abibu yëpp muy sëriñ Moustapha Mbacké mu di ko woote di ko yëgal nag mbooleem njabootu xaadim rasul mbooleem mag ñu baax ñi àndoon ak sëriñ Touba Cheikh Mat Bamba mbooleem seex yi bokki Mbacké yi ak bokki mbusoobe yi ñoom ñëpp Serigne Ibrahima Mbacke mi xalifa Serigne Abibou Mbacke mi ngi leen di yëgal guddig Laylatul Qadr ca Passe Fall nag nekk ci région Diourbel département mbay arrondissement bu Mbaba Garage bis boobee nag moom la ñuy woote muy guddig Laylatul Qadr di guddi gu tedd guddi gu sell koo xam ne jàmbaar ja Serigne Abibou Mbacke moo ko daan woote ànd ko ak mboolem bunti këri Sëñ Touba yëpp. waaye ànd kook bokki kajoor yi ak bokki bawal ak bokki njàmbur yi ak mbooleem bokki lislaam bi yëpp ñu koy fekk fa fa ca Pass moo tax nag jàmbaar gi yu ko wutu gannaawam di Cheikh Ibrahima Mbacke àndante ak mbooleem njabootuk sëriñ Abibu gépp di ko woote ci Touba Pass Fall kon ñu ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun ca fenn bàyyiwun ñenn daanu yëkkati kaddu gi nag jox ko sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo yore kaddu njabootu kër sëriñ Abibu gépp waaye bu noppee daanu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Abibu Diop su noppee nag daanu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Abibu Fall ñun ñëpp ñu bokk déglu sëriñ Moustapha Mbacké. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñuy jàkkaar lool ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci turu suñu Ibrahima Mbacke bi nga xam ni mooy xalifa sëriñ Habibou jaar ci jëwriñam sëriñ tàlla ak euh, sëriñ Cheikh ak sëriñ Mamor ak sëriñ Mourou Xabaan ak soxna Nday mi nga xam ni mooy taawu sëriñ bi ànd ak soxna Jaara ak soxna Sooda ñoom ñëpp ma yëkkati sama kàddu ci seen tur ci bis bu tedd bu màgg bii nga xam ni ci la ñu jëm muy bisu Laylatul Qadr ginnaaw bu ma leen nuyoo ziar leen jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Touba Cheikh mun taxaa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di leen siyaarit ci weeru koor wi nga xam ni ci la ne muy weer wu tedd di weer wu màgg di weeru ngëneel di weer woo xam ne weeru promotion la ci diggante ak jullit yi ak taalibe yi ñuy ñaan lépp loo xam ne woor nañ ko yàlla nañ ko ci yàlla nangul niñ ci duggee ci bisimilahi rahmaani rahim ñu àggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi soññi sama bopp di soññi ñëpp ñu fonk ko xam ni weeru ngëneel la weeru barke la ndax weer la woo xam ne weeru yërmande la weeru njëggal la weeru jot sa bopp ci sawara la di weer woo xam ne suñu borom moo koy fayal boppam yàlla wàcc ko ci ñun kon su tàbbee ci suñu biir te suñ sëriñ ba fonkoon ko loolu muy sëriñ Tuubaa maa ngi sama bopp lépp ñu bàyyi ko xel bu baax xam ni weeru promotion la lu ci waay rëccoon ci jaamu yàlla mën nga ko dab dabaate ci wi te jëf joo xam ne suñu borom moo koy fay kenn ku ne war nga caa góorgóorlu waaye bu loolu jàlleet dafa am bis bu tedd bu màgg bu rëy muy bisu laylatul xadar ci biir weeru koor lañu ko yàlla wàcce defal na ko mu nekk nga ngëneel mu den nekk guddi koo xam ne yàlla wax ne xayrun mina na sahri génn guddi gu gën junni weer la waaye nag suñu jàmbaar ja suñu sëriñ ba ka nga xam ne amuñu lu dul moom muy sëriñ Habibu Mbàkke ibnu ma Amadou Ndumbe nekkoon caatu Cheikh Amadou Ndumbe moo ko daan màggal di ci fàttaliku Cheikh Amadou Ndumbe Mbàkke jàmbaaram ja ci at yu bari am na ñu wax ni bokk na ci ñi ko jëkk taxawal ci biir Sénégal ndax ñun ñii lu jiitu ñu judd fekk nañ mu di ko woote muy gudd goo xam ni da ko fonkoon lool wax ni ku ko fonk du ku ko ku ko du yem ak ku ko fonkul ci man daana wax ni bis bii dinaa ciy fal dinaa ciy folli waaye boo xoolee da xam ni loolu nga xam ne bëggoon na ko suñ boroom nangul na ko ndax moom Serigne Habibou 2015 ci la toog xalifa si Amadou Ndoumbe 2014 fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci la génn àdduna bañ ko xoolee dafa dëppook fukki guddi ak juróom bañ ko xoolee mu dëppook layutu xadar nga xam ne lam waajal nag yam tànnoon ak xar ya war koo waajale layutu xadar mën na na wax ni nag yooyee mooy bisu ñaanam kon loola day tegtale ni lam doon sàkku suñ borom defal na ko kon dafa delluwaat ak ñaanam dafa duggaat ci biir layutu xadar googu nga xam ne mi ngi ko doon màggal kooke nag moo bis boobu moo dellusiwaat Sëñ Ibra jox ñu ndigal ànd ak njaboot gi ak taalibe yi ak waa kër sëñ Tuubaa yi wax ni ni ko sëriñ bi fonke woon nu ko raw la bëgg ñu fonke ko noona muy jotal ñëpp nii mu ngi leen ko yëgal di leen ko fàttali rawati nag ñi nga xam ne ñoo ko daan jàppale ci njàngum alxuraan mi lu mel ni daayira daara alxuraan yi ni ci biir Sénégal ak kuréeli xaside yi ak képp koo xam ne mën nga astaxfurlaa wala nga mën salaatu ala nabi nee na nga def ko ñu addiyaal ko sëriñ Habibu ak njabootu Cheikh Mouhamadou Ndumbe gépp bu loolu jàllee mi ngi ko yëgal njabootu sëriñ Touba nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba ni ko sëñ Matar waxee léegi bu bayul benn buntu kër soo limee di nga bàyyi te noo bàyyi kenn waaye buñ jëlee waa kër Cheikh Amadou Ndoumbé ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom bis bi sëñ Cheikh sëñ sëñ Ibra Xuja mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Amadou Ndoumbé jëw ñaan sëñ Cheikh Bintu ak mbooleem njabootu sëriñ Munu Xabaan ñi ngi leen ko yëgal di ko yëgal sëñ Saal mu sëñ Abdourahman ak mbooleem ay rakkam di ko yëgal it sëñ Xabaan mu sëñ Abdou Ummi ak mbooleem njabootu sëñ Abdou Xaadir mu sëñ Manumbe di ko yëgal it njabootu sëñ Seexuna Tawa te sëñ Daam ne ca bopp ak mbooleem ay rakkam di ko yëgalit waa tundu kajoor ndax këri diine yi nekk foofu yëpp ñëpp la sëñ bi lu ci mel ni daaru baaxum Touba kan sañ cub siin kër sëñ bay jaay gol bi suñ mut baaxum daaru baaxum bàyyiwul fenn sëñ seex badar ñoom ñëpp la sëñ bi amoon kon tund kajoor gépp sëriñ bi nee na mi ngi leen ko yëgal dina ko fàttali rawati nag waa Touba Passe Fall ci boppam ñoom ñi nga xam ne ñooy daloo gan ñi muy góor ña ak jigéen ñi mag ña ak ndaw ña sëñ bi mu ngi leen di soññi ñu dalal gan ñi ci berne ak toppalootal tax taxawu leen ba ni mu ko bëggee mu am ko lu kawe njortam di soññi mbooleem njabootu sëriñ Touba gi bu ñu tuddee sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moo yore kàddu yoonu murit ak sëriñ Moustapha mu sëñ Sidi Makhtar naka jekk nga xam ne wëlëre sëriñ bi la woon te da ko daan ànd ak sëriñ bi ñu ngi ko koy fàttali di ko fàttali njabootu seex moom Lamine Bara gépp di ko yëgalit jàngkat yi sëñ Cheikh Sall nga xam ne wëlëre woon la ak sëriñ bi jàngkat bi xaarim kebe la moo koy fanaane waaye ñu ngi ci woo jànkati Sénégal yëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku nekk sëñ bi daa laa amoon am lu mu daan jëflante ak yow kon nag bis bii bu ñëwee ñu ngi la koy fàttali nga xam ne na nga ko seqe woon ak sëriñ bi noonu nga ko nga ko seqe ak njaboot gi ñu ngi koy fàttali ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen xam ne daal bisub ngëneel la bisub feex la bisub xiwal la sëriñ Abibu mii nga xam ne nag moo ko doon def di doomi Cheikh Ahmadou Ndumbe fa bis ba fàggu na ca fàggu loo xam ne ku ci jàpp ak ku ci bokk jàpp du yem bu mukk kon bis boobu lañ leen di fàttaliku sëriñ Abib doon jàmbaari sëñ Touba doon taalibib Cheikh Ahmadou Bamba bëggoon lool Cheikh Ahmadou Ndoumbé ba yëmale ko woon dara ndax mooy caatum Cheikh Ahmadou Ndoumbé te ku ne xam ne Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci kër sëñ Touba juróom benn at la ko sëñ tubaa mage juróom benn at la ko sëriñ Touba jiitoo ñoo bokk fuñ ne jamono sëñ Touba moo ko yar moo ko jàngal moo ko tërbiya kon kooku am caatam buy fàttaliku bisu Laylatul Qadr kooku bis boobu ñëpp war nañ caa jàpp bu loolu jàllee ñi ngi koy def mi ngi nekk la 4 nekk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor nekk la 4 ci weeru avril di fen di tombeek feetul indépendance ñu mel ni nag dañoo nekk jëm ci ay élection tànn njiitu réew lu yàgg la ci biir Sénégal ñuy ñaan ci sénégalais yi fi nekk ñu defe ko ci yar ak teggin ak taalibe jàmm ji nga xam ne suñ mag ñi moom lañ daan ñaan duñ ko wut jàmm jooju bu ko fi buñ ñaan yàlla kenn dina ko xañ te lañuy xañ jàmm bokk na ci kenn ku nekk nga doxalin noo xam ne gënul kon ñi ngi leen di soññ ñoom ñëpp ñu àndandoo def ko ci yar ak teggin ak taalibe ku gën ci réew mi suñ borom tegal na ko fi ku gën ci réew mi xam ne boo dikkee ci réew mi di nga fi indi jàmm di fi indi xéewal yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla tànn mu ne ci réew mi jullit nag ñaan mooy ngànnaayam kon ñi ngi digal jullit ñëpp taalibe yëpp ñu jël seen ñaan yàlla def ci réew mi jàmm gën a dolli jàmm ji ndax jàmm rek moo mooy tax liñ bëgg ñu am ko su yëpp laa doon wax ni kat jàmm yàlla jàmm gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën àllaaxira te doon na wax ne suñu Sénégal gi ku fi bëgg a indi leneen lu dul jàmm sa kaw dong lay këpp kon yàlla na yàlla defal jàmm jooju mu sax fi te jàmm jooju li ñu koy may mooy ñaan ñaan nag ajuwul cib sëriñ ñëpp képp koo xam ne ab jullit nga wala ab taalibe nga nga yor sa kurus nga ñaan yàlla sotti ci réew mi jàmm bu buñ tàllalee suñuy loxo yàlla ñaan ko yàlla dana na ko may ndax yàlla ndax nee na maa leen gën a jigee seen buumi xol yi loolu nag li mu ci jublu mooy kat toroxlu ca moom di ko ñaan kon nañ ko ñaan mu xoolal nu ko gën ci réew mi indi fi di fi indi jàmm di fi indi ay xéewal mu tegal ñu ko fi loolee daal maa ngi koy digal képp koo xam ne ab jullit nga wala ab taalibe nga bàyyi ko xel bu loolu jàllee programme bi suñu abi bu dina ci ñëw ak suñu abi bu jóob te nanga xam ne noonu la noonu la programme bi di tëddee conférence bu mag dana fa am boo xam ne ay borom xam-xam ñoo koy taxawee ci njiital suñu abib mii nga xam ne boobaa koy coordonné ak sëriñ Moussa Diop ñu taxaw borom xam-xam taxawee ko ñu fanaane ko euh, conférence ba fajar jàngkat bi fanaane jàng ba fajar bu demee ba fajar ci la sëñ bi day ñëw toog waxtaan ak mbooloo mi ñaanal leen kon ñi ngi ñaan ñi ngi séntu ñëpp di xam ne daal la la nekk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor ñu ñaan yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo si leen ci jàmm ñaan réew mi ñu ne yàlla def ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa wa barakaatu. yéen mbokk taalibe yi man maa ngi leen nuyu ñoo bokkal Cheikh Habib Mbacke ak Cheikh Ibrahima Mbacke maa Habib Diome donc Cheikh Ahmadou Mbacke maa ngi leen nuyu di leen sant di bis bi kat ñëw na suñu jàmbaar ji moom rek la man ñu ci sànnu lool kenn ku ne nga ci taxaw na nga taxaw na ko yokk koo bokkal Cheikh Cheikh Ibrahima Mbacké rek maa ngi lay maa ngi lay soññ ci ci ci ci ci ci bis bi. nañ ci ànd ko Pastef ak ko pas-pas muy góor ñi muy jigéen ñi ñun kat bis bi ñun jàmbaar suñu jàmbaar ji kat moom rek la man waaw du ko daa taxawal saboo boo ñaanale mu mu mu mu mu mu mu yaa waajal leen kon bis bi suñu bis la fekk fu taalum nekk yaakaar sëñ Abib Mbàkke ak sëñ Ibra maa ngi la ci kenn ku ne xam la nga ci da nga cee taxawee nañ ci góorgóorlu ci am na bis bi kat mooy suñu bis waaw da ci Abib Mbàkke bis bi rek la man jàmbar ji yàlla dogal mu wàcc bi liggéey waaw kon nag nun suñu bis kat fu waaye nekk rek ci yaakaar sëñ Abib sëñ Ibra Mbàkke maa ngi lay nga nga teew si ak la nga ci la lépp rawatina ak ñun jaar ci daara sëñ bi fu waaye maa nekk jaan daara sëñ man maa ngi lay ñaan nga teel ñëw jëkk fu mujj fa waaw ñun kat dañ see dañ see dañ see war a dañ see war ndax ñun yàgg na si waaw ak Cheikh bi Mbacke waaw nan fa jëkk nan fa mujj nan si xam bis baa mooy suñu bis waaw man man man Habib Diop mi fu table bi nekk. loo ci def na ko def lu ko lu ko lu ko lu ko lu ci teel a ñëw surtout nag abib yi nag abib yi naa abib yëpp nañ fa nañ teel a ñëw waaw. waaw nañ ci jàpp baax a baax a baax te bis bi kat mooy suñu bis bépp taalibe maa ngi lay ñaan bépp soxna taalibe nañ ci nañ caa teewe ngeen teewe waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu. wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di baal àq di leen balu àq. di ñaanal bu baax sëriñ Mouhamadul Mountakha yal na ko fi suñ borom gën a yàggal gën koo dolli wér ba li mu fas yéene liggéeyal sëriñ bi mu liggéey ko te lépp àgg te ñu ànd ko ak moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di ko ñaanal sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacke xalifa Cheikh Ahmadou Ndumbe ak mboolem xulafaa yi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër Cheikh Ahmadou Ndumbe te nekk ci Eh, nekk ci eh, féete ko ne ci ginnaawam mu jiite liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey bépp mu jëm ci Cheikh Ahmadou Ndoumbé di ko ñaanal itam sëriñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp kër sëriñ Habibou Mbacke ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la jiite eh, di sant bu baax ak gërëm sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ni moo nu ubbil waxtaan wi màggal gi nag ni ko sëñ Abibu baaxoo def rek noonee lañ koy noonee la noonee la ko sëñ Ibrahima euh, di diglee ñu koy defee noonu muy jiital ci njàngum alquran njàngum alquran mi nag dañ koy tàmbali bu weer wi teroo ci la ñu tàmbali di jàng njàng mi nga xam ne mooy njàngum alquran ma njàngum alquran bi daayira yi nga xam ne ñoom daan nañ ci jàppale ñu ngi leen koy soññi lépp luñ ci daan def rek ñu yokk ko ngir euh, ngir euh, mbir yi noonu la war a demee Ah, bu ko defee am na daara joo xam ne eh, ñu koy tuddee Allo Yaasir Serigne Bassirou Mbuub eh, jiite ko moom itam ñu ngi leen koy fàttali di ko jiite di ko fàttali Serigne Mor Ndiaye moom itam eh, moom itam ñu ngi ko koy fàttali ak di ko fàttali daayiratu ma fàttali Bichri ci njiitul Serigne Gora nekk fële ca Touba Sexew ga ak ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira ba ñëpp ñu ngi leen ko ñu ngi leen ko ñu ngi leen di fàttali njàng moo nga xam ne moom lañ daan jital di ko waajal di ko jëme ci bis bi waaye bis bi itam bu ñëwee itam ki nga xam ne Serigne Xabaan Mbàkke mu mu sëriñ Habib Mbacke moom ci boppam mooy jiite njàngum alquran mi feggoo ak ña nga xam ni ñooy ñi jóge ay kokki ak daaru baaxum ak biir paas ak li ak ak ak ak euh, ak ak ak euh, daaru daaru amar ak ak yooy yi nga xam ne ñoo wër paas yëpp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di nga ñëw ci bis bi ñu fas yéene nekk foofe di dundal bëccëg gi ci di jàng alquran ah, kon loolu itam xabaan nam ko daan jiitee noonee la ko sëriñ bi yeesale ndigal li ngir mu jiite ko noonee ñu bu ko defee lañ luñ fa wàcce ak li nga xam ne moom lañ wàcce indaale loole lépp ni ko sëriñ bi daan defee yooyu yëpp da ko daan dajale ba mu daje mu ni liggéey baa ngi nii sëriñ Ahmadou Ndoumbé jébbal naa la ko lu mel noonee itam noonee la ko sëriñ eh, sëriñ Ibrahima Mbacke di di ko sofe ba lépp lu ci daje ci njàng noonee la koy jébbale waate sëriñ Ahmadou Ndoumbé bu ko defee nag ñu eh, suñ borom ñu ñaan mu fajal ñu ci suñuy aajo zahiran ak baatin zahiran wa baatinan ba tey itam xam daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi itam daayira sëriñ Abdul Ahad mbake yàlla na yàlla yokk leeram mu nekkan jàmbaar lool a ah, ci nekkuk sëriñ bi mu daan am daayira bu mag a mag boo xam da ko daan jiite di ko jébbal sëriñ bi ba bi fi sëriñ bi jógee itam mu koy jébbal sëriñ Ibrahima ba yàlla def moom itam mu fekk mu mu mu fekki sëriñ Habibu ñuy ñaan suñu borom yàlla yokk leeram waaye daayira boobee ñam ko daan àndal ba léegi noonu noonee lañ soppiwuñ ca dara daayira suñu Abdul Ahad lañ ko tuddee te itam amul benn màggal goo xam ne dina ñëw ta lu dul dee ñu ñëw kon ñooñu itam sëriñ bi ne mi ngi leen di mi ngi leen ci soññ bu baax a baax sëriñ Seex Badar itam kenn ku ne xam na ab daayiraam ak waa saam ak li aju ci saam gépp eh, moom itam sëriñ bi ne mi ngi ko fàttali ah, keneen ki ki nga xam ne itam mooy soxna naar Mbàkke moom itam doon jàmbaar yoo xam ne itam kenn ku nekk xam na eh, lim nim nim daan taxawee ci wàllu woowu ak waa daaru moxti ji nga xam ne ñoo ko daan àndal ci liggéey liggéey boobu moom it sëñ bi neen mi ngi leen di soññ ci ci ci ci bis bi waaye itam daayira yi nga xam ne nag mooy daayira sëti sëriñ Habibu yi ñoom itam sos nañ seenu daayira ñoom it sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali ci njiitul sëriñ Fallou Fall ak sëriñ Modou kan nee na mi ngi leen di fàttali itam liggéey bi am na daayira boo xam ne itam ñu koy tuddee daayira boo xam ne ci njiitul sëriñ Xasan moom it mu nekk ci fële ca Touba Mbabarine moom itam euh, sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali waaye itam kili ñi ñi ko xamee ni mooy magu kër gi te buñ ci tuddee ku mel ni sëriñ Habib Diop mi nga xam ne jëleen kàddu ci seeni tur ak sëriñ Racine Fall ak sëriñ Ibra Ibra Coro Fall ci ndaam ñooñu ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñëpp di di di di magi kër gi sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali bu baax a baax di leen di leen ñaan nañ ca daan teewe ak lañ daan soññi ak nañ ko daan defee népp lépp nañ ko gën a yokk gën koo gën koo gën koo jëmee kanam nee na ngi leen ci mi ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax kon eh, ni ko sëriñ bi waxee tam Euh, euh, jànkati xasida yi ni mu ko ni ko sëriñ bi waxee Eh, soññ leen ci bu baax a baax eh, ki nga xam ne nag moom moo yore moo koy jàng muy Serigne Khadim Kebe waaye tam ni mu buñ demee itam lu jiitu njàngum xasida mi waxtaanu diine wi nga xam ne baaxoo nañ ko amal itam deñ ko ci deñ ko deñ ko deñ ko def nañ ko daan defee incha allah kon daal yaakaar naa ni loolu mooy li aju ci bis bii nga xam ni mooy bisub laylatul qadar ñu ñaan suñ borom yàlla def ñu agg ci ak ci bismillahi rahmaani rahim te itam lépp luñ ci daan jëf koo jëf te mu fulu te itam yàlla def ci def ñu defal ci gërëm te itam di di gërëm sëñ sëriñ Moussa ak sëñ Muxtaar Diop ak mboolem ñi nga xam ne ñooy média yi nga xam ne teew nañ fi tey jii ñëw ci kanam sëriñ Moustapha mi nga xam ne moom mooy euh, bopp moo nekk ci bopp njaboot gi di di yor kàdduk euh, kar sëñ Habibu tey kenn ku ne xam ni saa yu weer wi teroo amatul lenn lu muy yittewoo amatul lenn lu muy soxla lenn lu dul lu dul bis bi bis bi jàkk dencul benn dërëm dencul benn tànk lépp lu mu am fas yéene koo def ci bis bi ngir bis boobee rafet kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ay journaliste nekk wi nekk nekk di ay taalibe fa te koy ànd ak yéen te at mu ne saa yu leen wooyee kenn ku ci nekk di ci day ñëw taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rëy rëy la te te itam te loolee la tax nga koy def dara taxul lu dul yàlla ak yonte bi ak sëriñ ak kóllëre ak sëñ Ahmadou def ak defal sëriñ Abibu ak defal sëriñ Ahmadou Be yéen itam sëriñ bi xam na eh, mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal kenn ku nekk fa nga nekk ah yàlla na la fa yàlla gën a yokk ci daraja yoo xam ne yu gën a kawe yu gën a kawe yal na leen yàlla dàqal lépp lu ngeen ragal waaye ñu di leen lépp lu ngeen bëgg ci barke sëñ Dumé ndaxte sëñ Moustapha kat nee na képp ku ko jàppale ci liggéey bi yëg na ni yëg na yëg na yëg na la ndaxte moom bis rek la am bis bi rek la ngéejoo te bis bi itam sëñ Abib da ko cee joxe ndigal sëñ ah, sëñ Ibrahima feddiliwaat ndigal loole kon nag képp ku ci ànd ak moom na la wóor ni mi ngi lay ñaanal eh, sa sa sa sa sa yitte yëpp yàlla eh, eh, defal la ci xaas ci barke Serigne Touba mbokk yi bis baa ngi yemook ñaar fukki fan ak ñeent di ñaar fukki guddi ak juróom di guddig Laylatul Qadr ca Touba Pass Fall ñu ko yëgal kon mboolem jullit yi ak taalibe yi daaray kaamil yi mbokki Mbàkke yi ak mbusoobe yi sëriñ Ibrahima Mbàkke mi xalifab Cheikh Abibu mbakki moom Cheikh Mandumbe nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn Pass Fall nag mi ngi nekk ci région Diourbel département bu Bambey waaye nag euh, arrondissement bu Baba Garage kon ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ya rabbi